yéena teewal fii ci guddi bu yónneen bee ah yal na yàgg lool sunu gaal 24 yéena ci guddi gu yónneen bee yal na yàgg teewal fii ci guddi bu yónneen be yal na yàgg lool sunu gaal 24 teewu fii ci guddi gi yónneen be yal na yàgg lool téléspectateurs yi ba léegi rek euh, di wéy plateau spécial euh, fii ci diwaanu Ndiassane mbokk yi mu mel ni maa ngi toog ak sama xarit nag mbokk yi Cheikh Bounam Mbaye ah Cheikh Bounam Mbaye bu ñu ko wax tam di taalibe ci sëñ bi Cheikh Bounam Kunta waaye tamit euh, di doomu Medina ku bëgg di safoo Medina macha allah ñu fekk ko tey fii ci diwaanu Ndiassane euh, Cheikh Bounama Mbaye ñu ngi lay sant rawatina ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga tey ñëw dañ lay bàyyi kaddu gi may kaddu yoo xam da nga waaw Mouhamed jërëjëf ñu ngi leen di ziar di gannaaw bañ sant yàlla julli Seydina Mouhamed ñoo ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu jullit yëpp du ndokkeel ñëpp jël nuyoo bi nag di gisal sunu xalife bi nga xam ni. ak ndikkunte yëpp ci moom mooy nekk suñu wasila ñu di ko ñaanal yàlla muy maam Bécaye Bécaye nga xam ni ñu ngi koy ñaanal wér di ko ñaanal li nga xam ni moo ko yor yàlla ko yàlla may wér ak kattan di ko ndokkeel di ndokkeel ay rakkam yëpp ak ay doomam yëpp ak taaliba yëpp di wax ni ñu ngi fii si Ndiassane du nuyu nag ñi nga xam ne tamit ñooy ñooy sunu gaal 24. nga xam ni mu nekk tele boo xam ni wax dëgg yàlla dañ leen ñaanal yàlla ñu dégg ko fu ne ndax lii ngeen di def askanu senegal ngeen koy defal at ñu nekk bitim réew tey nag ñoo ngi fii si Ndiassane du ndokkeel ñëpp di ziare ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ñëw nag fi nga xam ne mooy suñu ko sëriñ suñu sëriñ ñu koy wax Cheikh Bounama Kounta Cheikh Bounama Kounta moomu nag Abdou Sidou Kounta mooy woy juróom Abdou Sidou Kunta Bekaay Kunta mooy woy juróom bu naa Bunaama Kunta kon dama wax ni moom mii tey jii moom lañu fekk si muy suñu sëriñ ñu di ko ñaanal yàlla di ko ndokkeel li yàlla lañ ko yàgg def ñu ñëpp a ngi Njaasaan te li ko waral muy guddi Seydina Mouhamed guddi Seydina Mouhamed nag buñ koy wax képp kuy taalibe képp koo xam ni tey jii yaa ngi fii si Ndiassane ñu ngi lay ñaanal du la ndokkeel di ñaan yàlla nañ ko téew ay déwén yu bari ñun nag gàmmu gi tey fii lañ koy defee suñu ko sëriñ ànd ak moom lépp loo xam ne dañ koy def ci guddi Seydina Mohamed fas yéeneen ko ànd ak suñu sëriñ ànd moom dalal gan teeru gan ku ki nekk ñu jox la sa wàccuwaay sunu sëriñ boobu tey loolu lañ koy defal du ndokkeel lépp ndax ñun dañu wax ne amuñu kenn ku Seydina Mohamed kon damay wax nii ah sama sëriñ maa ngi lay ziar Mouhamed di loon ndekkal yow tamit sa gudd maam gi nga xam ne sa gudd trondoo ñu la ci ndokkeel di wax ni kaddu yoo la ñu amoon kaddu ñuy wax bu ba ci kanam nag nga xam ni gan yaa ngi ñëw autorité yi ñu ngi ñëw ñu talal leen suñu kanamu sëriñ loolu daal la ñu amoon kaddu ñuy wax ba ci kanam nga xam ni bu gan yi ñëwee nag lépp luñ ci yokk ñu ko ci ñoo ngi ñaanal télévision bi ah di wax mbokku Sénégal nag lii nga xam ni nag mooy sunu gaal 24 nañ ko bàyyi xel muy télévision boo xam ni nag wax dëgg yàlla askan bi a fa nekkal ñu nekk bitim réew ñu nekk Sénégal ak fu waay mu nekk ci àdduna bi tele bii am na solo da leen di ñaanal nag mu nekk télé boo xam ni nag mu nekk caat ah mu juddu nag njëkk baax kon sénégalais yi seen télé ngoog muy sunu gaal 24 ñu leen di ñaanal yàlla yàlla. bàyyi leen fii te fu ngeen bëgg àgg gi si Sénégal ak ci àdduna bi yëpp yàlla àggal leen fi di la ndokkeel Mouhamed ñu ngi lay ndokkeel bu baax yaa ñu ko àndal ñëpp technicien yeeg ak yi ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel wasalaam loolu la mën kàddu ñuy sànni ba ci kanam jërëjëf jërëjëf mbokk yi di sama xarit di ku baax nag di ku baax lool tabarkàlla fu nekk fekk nañ ñu fa ci bande FM yi ñu koy faral di waxee saa su ne fekk nañu fa jotaay yu bari fekk nañ ko teewee ko waaye te nekk ku baax ku bëgg sëriñam nag bëgg Cheikh Bounama lool di ko ñaanal yàlla di taalibe nag am lool taalibe ñaanal yàlla sunu borom jàppale la yow tamit wax dëgg yàlla euh, di leen sant bu baax ndax Sunugal 24 lii rek moo ko a euh, euh, taxawal li nga xamante pour bés bi am réussite kon ñu ngi sant bu baax a baax li nga xamante suñu njiit Serigne Aliou Top waaye ak mboolem équipe technique bi nga xam saa su ne sama ginnaaw fu ma leen woo rek ñu jóg kon maa ngi leen sant bu baax tamit la santaat bu baax Cheikh bu naa ma xam naa ci kanam tuuti rek daañu gën a yaatal jërëjëf jërëjëf waa kay waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi mu mel ni euh, daanaka ñoo ngi rek euh, sunu mujjug euh, plateau bi nga xam ne rek ñu ki ñuy fas yéene dara rek mooy Serigne Issa Thiam Serigne Issa Thiam bu Medina donc tabarkàlla ñu koy nuyu ak mbooleem ñi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel ci diwaanu Medina sopp ko lool nag ci li tagg yonent bi nga xam ni saa su ne si lañ ko xamee Serigne Issa Thiam mu mel ni dugg si nga Ndiassane tabarkàlla mu mel ni dugg si nga sa kër ñu ngi lay nuyu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, haj Mamadou Lamine ñu ngi lay nuyu di la ziare euh, di la ndokkeelit ci bis bi macha allah di bisub gàmm di bisub gàmmu Njaasaan macha allah ñu ngi la si ndokkeel di si ndokkeel waa réew mi yëpp di nuyu it sunu sang bi nga xam ne tey mooy doon nay cheikh bu Mohamed di. sunu maam Cheikh Al Bekkay mu sunu maam Cheikh Al Bekkay taawu Cheikh bu Mouhamed Kunta doo koy siyaare bu baax moom it di ko ndokkeel it ci bisu maamam bi ak mboolem surafaaw yi ku ci ne ñu ngi lay ndokkeel sa bis bi ah, di dellu di ñaanal sunu maam ji fi jóge muy alaaji maam bu Mamadou Kunta ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare ajana ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa maam ak mbooleem ñi mu fa fekk ak ñi ko fu fekk ah, di siyaare it sunu mbokk suñu mag ñi ne ci réew mi yëpp moo xam Touba ñu koy jël jox ko sunu euh, maam euh, sëñ Muntaxa ñëw fi ci Tiwaawan jox ko sëñ euh, Mansu sëñ Mbay Si Mansuur bu ko mu joxuñu ko mbooleem kuy Tijaan waaye dem Kawlax noonu lañuy def jaar Tiwaawan jaar Laayeen di ziare mboolem turux yi nekk ci kër gi ci dëkk bi yëpp. ku ci ne di la siyaare eh, di la wàccee sa wàccuwaay di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye di ndokkeel it ñëpp macha allah. waaw Cheikh Issa mel ni duñ la tey itam mu mel ni eh, daanaka eh, fi nga war a jaar bari na hmm, Ndiassane ñi la fi soxla tabarkal la rawatina guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ lay bàyyi rek tuuti nga barkeer sax ci simili yu néew rek bu ko defee rek ñu mën laa yeewi ndax fu mu ne nii xam naa ni lii moom xëy na wóllare bu yàgg rek tax tamit nga nangu ñu leen mel dañ lay bàyyi nga dugg ci yonent bi. njol makka moo doomi Abdoulaye borom junjum ya ci Rasulullah Abu doomi Abdul Muttalib nobal na góor ña kenn dootu ko dab wa ummu ndeyam njayaay amina moo raw ci jeeg gi laaxira ki njol makka moo ci doomi jeeg yi kon bintu wax um nga laam bi jeeg yi ku ci wutaraw keroog yow mal qiyaam jullil ci yonen mooy rammu bépp jaam Cheikh Sidil Maxtaar ne ah, ah, ah, ah góoru lalla ay sama woon Cheikh Sidil Maxtaar nee na alhamdulillahi allazi sharafana bi salati alayna iz yaqulu huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu yusalluna ala nabi wa malaikatuhu liyukhrijukum min az-zulumati ila an-nuri بل لما أشركنا معه في فل الأميم حيث عرفنا بصلاة علينا والتسليم نبغنا على إدساس النبي الكريم بزيادة الإجلال وتكريم وأنه إنما صلى علينا لوجهة وجه العظيم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم boo jullee ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon nga julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri nga julli ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon nga julli ci moom junni yoon sayram araamal na safara kon fu waay mën a ne na nga ne sallallahu muhammad sallallahu alayhi wa tabarkalla sëñ Issa Thiam tabarkalla te di la santaat bu baax eh, ni ñu koy wax rek duñ la téye te téye bu yàgg ndax barkeelu bi lu rëy la rawatina guddi gi yonent bi fii ki diwaanu Ndiassane eh, xanaa di la ñaan rek Issa eh, sunu borom gën la kattanal gën la dolli wér wéral kaddu gi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu gaal 24 point net di la gërëmaat ndax xam na ni niñ ko waxee rek jot bi bariwul waaye yombal nga li ni mel xanaa rek di la jox dig daje xam naa jëmi jamono boo xam ne plateau spécial boo xam ni xëy na daañu ko amaat ak yow xam na yaa ngi waajal lu bëree bëri waaw jërëjëf sëñ Maodo Lamine ah loolu dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa damay wax ne sunu gaal 24 euh, bu nu fu teewee dañuy am mbégte lool macha allah ndax gis nañ yow sa liggéey euh, ci diine gi tey it ñu ngi koy rafetlu bu baax di la ñaanal yàlla na yàlla mottali yéene yi barki yonente bi sallallahu alayhi wa di wax ne projet yi ñu ngi ci waaw ñu ngi ci di liggéey bu baax a baax a baax a baax. Eh, ndax ñi ngi waajal album di ci liggéey te bëgg nañu def album boo xamante ne ku ko déglu di nga xam ne album bi am na qualité muy ci son sonu son bi boo ko dégloo di nga dégg son bu neex waaye ci way yit bëgg nañ nga dégg way bu neex ci mbind bi bëgg nañ bu dee bind lu ñuy bind ñun suñu xasida ñu bind bind bu rafet waaye eh, ci ci ci ci ci eh, xasida yi mm-hmm. boo ko dégloo xam ne def nañ ci ay recherche ci loolu la ñuy liggéey moo tax album bi ñi ngi ci di liggéey am na ñu jot a pare incha allahu ñi ngi ñaan yàlla sunu borom ci 2019 bi la ñu yéene pour euh, génnee ko te it bëgg nañ mu nekk album boo xamante ne bu génnee ku ko ku ko déglu di nga am expérience su expérience su album ci loolu la ñuy liggéey moo tax yaakamtiwuñu ko nag ñu ngi koy liggéey même bu laajee ba 2020 wala 2021 ñu def ko waaye dañ ci am début bu baax daal bëgg nañ bu génnee ku ko déglu nga xam ne album génn na. te it eh, boo ko dégloo di nga si dégg expérience di nga si dégg technique. ci loolu daal la ñuy liggéey incha allah. di si sàkku nag ñëpp ñaanal ñu eh, yàlla motti lu ñu suñu yéene. macha ñu def ko comme ni ñu ko yéenee daal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tabarkalla jërëjëf euh, Issa Thiam euh, jërëjëf ñu ngi lay jaajëfalaat Sunugal 24 ni ñu ko waxee du duñu tàyyi rek di la gërëmaat di la ak cant di la ko delloo mbokk yi moo ngi noonu Sunugal 24 gis ngeen ci plateau spécial tàggatu yonent yi yaakaar naa ni bi ngeen lool ci ànd bi ngeen ànd ak euh, Sunugal 24 rawatina ci guddig yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy waajalaat fii ci diwaanu euh, Ndiassane gàmmuwaat di ngénti gi nga xam ne ñoo ngi ko fiy def mbokk yi saa su ne itam di nuyuwaat sunu caméraman bi Mamadou Dóor waar l'infatigable waaye itam ci wàllu montage bi di ci liggéey liggéey bu am solo réalisation bi sëriñ Aliou Top Euh, ngeen ànd ak si plateau yi tam seen mbokk taalib la mun Mountakha mbokk yi euh, di wax rek yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te it ku mu jàmmal nga daal di jàmm yàlla yàlla sunu borom rek doo la ñu defal jàmm euh, di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.